tey jii ñu gis ne fi ñu toll ci feebar bi laaj nañu euh, wëlbatiku waxtaan ak ak li nga xam mooy suñu mag ñi mag ñi nag dañoo nekk ñu am solo euh, ci ci société bi ba tax na tey jii foog ñu aar leen ndax ndax boo ko seetloo feebar bi am na bu amee buy sonal ndaw yi tamit la muy sonal mag ñi moo ëpp kon yaakaar nañ ni tey jii waxuma la ndaw ñi rek waaye képp koo xamante ni yaa ngi ci société te bokkoo ci mag ñi am nga responsabilité bu rëy ngir jàppale leen aar leen aar euh, seen bopp xam ni ngay dundeek ñoom ba nga mën leen aar ñoom ñu génn ci euh, Covid 19. Fatick euh, premier cas bi ñu am ca Jaxaaw la woon commune de Jaxaaw commune de Jaxaaw bi ñu amee cas boobu ci saa si ginnaaw moo nekkoon suñu suñu cas bu njëkk dañoo wëlbatiku jël ay matuwaay ndax bugguñu woon feebar bi mu génn ci commune bi ba taxoon dañoo wëlbatiku woon tëj commune bi tëj ko ngir mën a xam. Euh, ki feebaroon fan la jotoon a jaar ak kan kan la jox la jot a gis te bañ ko defee wax dëgg ñuy féliciter di remercier euh, liggéey bi waa euh, médecin chef de région def ànd kook ak ñi ñuy liggéey ak moom ñëpp ndax ci saa si def nañu enquête ba xam fu mu féetee ak naka la demee woon ba moom ci boppam ak famille am ñu jël leen en charge ba wé ñoom seen bopp sax famille bi yàlla def na ci jàmm ba ñu delloog jàmm ak salaam moom it wér na bu yàgg fii nag ñu toll xëy na euh, boo ko seetloo feebar bi boo jógee ci benn ginnaaw nit ñi tamit du ñu toog dañuy dem ak a dellu si moo tax it ndax virus bi du bougé waaye nit ñi ginnaaw ñooy dem ak a dellu si moo tax it cas yi day dem di gën a bari. kaa yi nag fi ñu toll mën naa ne euh, am na liggéey bu am solo bu ñu def ngir wàññi ko waaye tamit dañu seetlu ne day am toujours ay cas cas bi ñuy euh, cas yi si yi fi ñu toll mën naa ne ñu ngi ci juróom juróom-ñaar fukk juróom. juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar fukk ak juróom ci loolu nag eh, yaakaar naa ni ñun ñoo ngi continuer ndax am na ci juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu am na ci ñoo xamante ni wër nañ bu yàgg ba dellu seen kër waaye am na ñoo xamante ni xëy na ñoo ngi leen di traité te suñu capacité fii ci région bi mën naa ne am na tamit lu ñu dese loo xamante ni mën nañ ci eh, mën nañ ko eh, mën nañ ko jël en charge xëy na tamit ñaax nit ñi rek pour que ñu gën a mën a respecter geste barrière yi ndax tey jii fi ñu toll ci cas mu doon loo xamante ni boo ci yenen région yi wala nga dem tay ji ci euh, Sénégal gi wala ci yenen dëkk yi boko ko seetloo seen cas day day dem di gëna bari xeyna na yenn temps yi dinañ dem ba mu wañé ku tuuti ndax rythme de progression par yenn saa jour bo jëlé situation jour bi mëna wañé wàññeeku parfois mu yokku waye toujours mi ngi fi té liñu wara mëna continuer nag di xex moy né dem ba mbir mi génn euh, complètement ci ci ci ci ci fatigue génn ci région yi waaye génn ci Sénégal ba ak ci monde bi yëpp ndax tey ji képp ku ci desale benn rek pour man bàyyi nekkaat na foyer boo xamante ni mën na indiwaat yeneen répercussions yu gën a doy waar ci ci dëkk bi